bismillahi rahmaani rahimi wa sallallahu taala ala sayyidina muhammadin wa sallim sakawtu umuri wasan bil asim li rabbil xadirin xafurin rahim sakawtu umuri wasan bil asim li rabbil xadirin xafurin rahim fakun muskiyanni wa abli munaa bijaahi nabi safiy alkarim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki julli rawatina mbokki taalibe yi bu ngeen gisee jataay bi wala ngeen dégg suñu kàddu ndigal bàyyikoo na ci xalifa général kullu murit yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak koy mu di sëriñ Muntaxa Mbàkke agsi nag ci ki nga xamante ne bii moom moo di sëriñ Moodu Maram Njaay nekk ci boppu njabootu sëriñ Moor Njaay tàggaar waaye nekk ci bopp njabootu Serigne Mor Seye Ndiaye mi nga xamante ni moom la ñu dëkk man bisam mu bis bi nga xam ne moom la ñu dëkk man jagleel ko jàmbaar ju sell jooju di Serigne Mor Seye Ndiaye war a ak juróom-ñaari fan ci weeru tabaski mi nga xam ne moom la ñu dëkk man waaye ñu koy xayma ñaar fukki fan ci weeru tubaab wala ñaar fukki fan ak benn loolu nag tax na moom Serigne Modou Maram gannaaw bi mu jotee ndigal li mu fas yéene ànd nag ak mboolem ñi nga xamante ne bii ñoo di njabootu Serigne Mor Ndiaye tàggaar Serigne moor Ndiaye tàggaar nag bokk ci jàmbaar yi nga xamante ne bi suñ borom taw féexal na leen ñu bokk ci fukk yi nga xamante ne bii ñoo njëkk jox Serigne Touba seen bopp muy lu am solo ba tax nag ñu fas yéene ànd ak bis bi ànd ko ak mboolem jullit yi waaye ànd ko itam ak mboolem yoonu murit waaye ànd ko nag ak mboolem ñi nga xamante ne bi ñoo di njabootu Serigne Mor Ndiaye tàggaar waaye njabootu Serigne Mor Seye Ndiaye ci kaw loolu nag dana yëkkati kàddu gi jébbal ko Serigne Jibi Seck dana wax ci turu ndongo yi dana yëkkati kàddu gi jébbal ko Serigne Mor Ndiaye belal dana wax moom itam ci turu njaboot gi ñu soog a jébbal kàddu gi nag ki nga xamante ne bii mooy rek kaddu njaboot gi mu di Serigne Mame Mbaye Ndiaye mu wax ci turu Serigne bi wax itam ci turu njaboot gi kon nag ki ñuy njëkk a jébbal gi moom moo di Serigne Djibi Seck mu wax ci turu ndongo yi Serigne Djibi bismillah ñuy dellu di santaat yàlla bu baax di julli ci yonent bi di sant Serigne Touba di sant sëñ Mor Ndiaye tàggaar di sant Cheikh Mor Seye ak sëñ Modou Maram Ndiaye mi nga xam ne moo fi bi ak rakam Euh, woote bi nag bu ngeen gisee lu tax ñu def ko mooy ñu ngi soññee ci bisam bi nga xam ni dafa jub si muy sëriñ moo sëy sëñ Maodo Maram di ko soññee ci diggalal sëñ Mountakha ak it maam ak rakkan yi mu àndal séq ak moom kër gi yëpp euh, mu di ko soññee di ko fàttali nit ñi ne xam nañ sax fàttali wuñ ko waaye mu di leen ko fàttali mu yem ak juróom-ñaari fan ci weer digg tabaski bi ñu di leen ko fàttali bu baax di leen ci soññi Euh, soññee bi nag ku ko dégg xam ne loolu du gan fi yow ndax ku am jàmbaar ju toll ni Cheikh Mor Seye mu batale la ak jàmbaar ju mel ni sëñ Modou Maram ak ay rakam bis bu wootee bis bi kenn ku nekk war nga xam la ci sa taxawaay rawatina nag ñi nga xamante ni sooy mooy magi taalibe yi nga xam ni ñoom ñoo jiitu woon ci kër gi di wamat gone yi di leen teete ba ñu yegg si fii ñuy soññ nag dëkk yi nga xamante ni si ñoo wër Daaru Njaay bi ci jëkk muy Daaru Njaay ak cey cey gëti guy Touré Mbaye Kadi Diaye Ndal Nguer fu mel ni Touba ñu ngi leen koy fàttali ak bokk yi nga xam ne ñu ngi féete Dakar nga xamante ne si fàttewuñu leen am na nag beneen soññee bu def ci seen kanam boo xam ni am na ñu ko war a wax dinañ leen ko jot li képp koo xam ne déggoo ci sa turit nanga xam ne am na keneen ku lay war a woo yow it boo ko déggee koo ko mën a jotal nga jotal ko ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi leen di nuyu ci turu Serigne Modou Maram Ndiaye mi nga xam ni moo fi nekkal njabootu Serigne Mor Ndiaye Tàggaar ak Serigne Mor Sey Ndiaye euh, di nuyu euh, nuyoo bu matale boo xam ni nee na mi ngi koy jotal sëriñam yaakaari tey moom ëllëg di Seex Mamadu Muntaxa Mbakke di ñaan yàlla yàggal ko fi te may ko kantan li mu yéene liggéeyal Seexul Xadim lépp mu liggéey ko ci coobareem mu mu ko bëggee te nu ànd ko moom ginnaaw loolu mi ngi nuyu njabootu sëriñ Mor Ndiaye tàggaat gépp di nuyu njabootu sëriñ Mor gépp ñi nga xam ni ñoo aju ci sëriñ Mor ñëpp ak sëriñ Mor Ndiaye tàggaat ñëpp nuyoo bi matale mi ngi leen jot nuyoo bi ñaan yàlla yàlla defal mu tawféex ba bis bi ñu dëgmal di juróom-ñaari fan ci weeru diggu tabaski di war a tombe ñaar fukki fan wala ñaar fukki fan ak benn ci weeru euh, juillet nee na mi ngi ciy woo ñëpp bàyyiwul kenn képp kuy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada rasulullah wala képp ku sukk jébbulu nekk taalibe ak foo mën a bokk ak mbooleen ñi nga xam ni ay bokki boppam yu mu bokkal Serigne Touba la di ñi nga xam ni ay cheikh la ñu yoo xam ni sëriñ Mor Ndiaye tàggaar dafa bokkoon ak ñoom Serigne Touba wala ñi nga xam ni Serigne Mor Serigne bokkoon na ñoom Serigne ñëpp mi ngi leen di woo bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn mi ngi woo bokki dëkkandoom yi nga xam ni yii itam ñoo dëkk fii ci Daaru Ndiaye ci biir dëkk bi ak ñi nga xam ni ñëpp ñoo wër Daaru Ndiaye di dëkk yi nga xam ni yëpp bàyyi ji lim na leen sànq. waaye am na yeneen dëkk yoo xam ni dañ noo wër ndomba mel ni ngéy ngéy ak euh, Mérina Diop ak Njenne ak Tëbdal ak Jung euh, euh, ak Njoot yooyu defe naa mooy dëkk yi gën a jege waaye jàll na ba kàddu njaay ak ndàll ngeer ak ak Mbakar ak dëkk yi nu wër yépp daal ñu ngi leen di woo defe naa dina am yeneen communiqué yoo xam ni bu jàlle dina matale dëkk yépp ba njaxeer fépp mi ngi woo ñëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn mi ngi wooy bokki tuubaay yi euh, Moussa Seck mii moo fa nekk euh, ak bokki taalibe yenn Touba yëpp ak njaboot ga féete Touba yépp jigéen ñi nga xam ni itam noonu ñoom ñoo bokk sëñ moon ñëpp mi ngi leen di woo soxna maam Awa Ndiaye soxna Fan Ndiaye ak ñi nga xam ni ñëpp noo bokk sëriñ Mor mu ngi mu ngi leen di woo di sàkku yit maanaam seen teewaay mi ngi sàkku it ñëpp teel a bu kenn nit ba bis ba ngay doog ñëw ndax bis bu fekkee ni day tàmbali ci suba bi di am ci tàkkusaan ku ca bokk war nga faa jiitu bis ba mu ngi soññi ñëpp di soññi taalibe yi nga xam ni eh, ñooy magi kër gi ñoom it nañu jiitu si ndax gone yi am na eh, passif lool waaye soxla nañ xalaati mag ñi kon mag ñëpp ñu ngi leen di soññ ñu ngi soññ itam euh, ñi nekk bitim réew ñëpp ñooñu ñu ngi leen ñu ngi koy jaarale ci turu Malick jaañ ma nga xam ne moo féete foofa ci daayira yi nga xam ne ñoo nekk Europe Italie fépp ñu ngi leen di soññ di soññi Omar Seck mi nga xam ne mooy moo nekkoon ci kër gi te féete fële ci euh, euh, Angleterre ak ña féete foofa ñëpp bu ñu soññee ñooñu nga xam ay taalibe yu féete foofa it ba noppi ñu ngi ci teg Serigne Bassirou Ndiaye mi nga xam ne moom it doomi Serigne bi la te nekk foofa Italie ñu ngi koy wax mu soññi ña mu war a soññi ñëpp ndax moo fay seen yi na soññi ñëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn taalibe yi nga xam ni it ñu ngi ci biir réew mi féete ci fukki nation yeeg lu topp euh, euh, kenn ku ci ne fa mu féete ñu ngi koy ñaan mu yi ña fa féete fépp. fu mel ni ndakaaru ak Cambérène nga xam ni fa la daayira yu mag yi féete ñu ngi ñaan ñu féete foofa ñëpp ñu soññante ci seen biir ba bis bi tubaarkàlla dara bañ a soxe ñu woo te bis boo xam ni mooy bisu sëriñ Mour Seye Ndiaye di ci woo taalibe bi ñëpp jullit yi xarit yi wala yi mu ànd ko nag ak ay rakkam tàmbalee ci sëriñ Mor Belal di leen soññ di leen ko teel a di leen teel a wol ci bis bi xam ne bis bi bisub alxuraan la ndax bisub sëriñ Mor Seye Ndiaye ñu ngi soññatim mbooleem jànkati xasida yëpp ca njiitum sëriñ Mbay Diagne ak sëriñ Cheikh ak mbooleem jànkati yi ak sëriñ Galaay Ñang ak képp kuy yëkkati xasida ñu ngi lay soññ ci bis bi di la ci woo bis bi nag dafa am ñu ci gën a ñor sëriñ bi muy sëñ Modou Maram muy li alxuraan di wax na ngeen di fàttaliku tey fàttalente ndax ci fàttaliku ak fàttalente ki nga xam ne amee na pas-pasu ngëm ci digganteem ak boroomam loolu moo ko mën a jariñ ñu bëgg cee fàttaliku nag jàmbaar joo xam ni mooy jàmbaari sëriñ Mor Njaay Tàggaar jàmbaar joo xam ni mooy jàmbaari sëriñ Touba jàmbaar joo xam ni mooy jàmbaari lislaam muy sëriñ Mor Seye ndax dafa nekk jëmm joo xam ne dafa jeex tàkk ci sëriñ Touba ndax ne mag ñëpp fobe seen bopp jox ko sëriñ Touba sëriñ Touba def ci ñoom lu mu deful ci kenn way juróom wu tedd ba di sëriñ Mor Ndiaye tàggaat noonu la ko jële woon mu jébbal ko sëriñ Touba sëriñ Touba def ci moom li mu def ci mag ñi tey woote ci ndigalul sëriñ Modou Maram Ndiaye xalifam sëriñ Mor Ndiaye tàggaar ak sëriñ Mor Sène Ndiaye di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te guddal aw fanam te wéral ay cëram moom mboolem njaboot sëriñ Touba ak njaboot sëriñ Mor Ndiaye tàggaar ak njaboot sëriñ Maam Ndiaye gépp bàyyiwul kenn di leen siyaare tey soññi suñu bopp di soññi mbooleem taalibe yi ci kër sëriñ bi rawatina uh, daahiratu soppee sëriñ Mor Sène Ndiaye yi nga xam ni waxtu wu ne ak saa su ne ak bis bu mën a am rek ñu ngi ci taxaw ci fulla ak fayda ci lépp luy jagal bés bi ñu ngi leen ci soññi ñoom itam bu baax a baax tey soññi mbooleem turandooy sëriñ Mor Seye Ndiaye yëpp bàyyiwuñ kenn ci turu sëriñ Talla Diop tuuba ak sëriñ Talla Dia Touba ak sëriñ Mor Mbaye Touré ak mboolem fu turandoo nekk ak mboolem turandoo yi euh, lëkk euh, ci turu daayira bi lëkkale turandoo yi sëriñ Mor Mor Seye Ndiaye di Muxaddamatul Xidma di kuréel bu tënk boo xam ni moo lëkkalee turandoo Serigne Mor Si Njaay yëpp di ci soññi fu turandoo mën a nekk rawatina Serigne Mor Sàll euh, njenne ak mbooleem ñi mu nekkaloon ci biir kër sëriñ bi doon tërbiyewu sëriñ bi ak Taala Jaañ cey cey ak fu waaye mën a nekk ci turandoo daal sàkku nañ sa teewaay ci bis bi jërëjëf jëf mbokk yi kon nag bis baa ngi noonu war a nekk juróom-ñaari fan ci diggu tabaski wi ñu koy xayma ci ñaar fukki fan wala ñaar fukki fan ak benn ci weeru tubaab bi muy digal lu bàyyi ko ci sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér agsi ci sëriñ Modou Maram Ndiaye bi nga xamante ne bii moo toogee jataayu sëriñ Mor Sëy Ndiaye ak jataayu sëriñ Mor euh, sëriñ Mor Ndiaye tàggaat di koo xam ne nii bokk na ci fukk yi njëkk jox seen bopp sëriñ Tuubaa Seexul Xadim muy bis xam ne kon mbokk yi sëriñ Modou Maram mi ngi ci woo mbooleem ñi nga xamante ne bii ñoo di julli di ak fu ñu mën a nekk ci biir réew Sénégal ak bitim réew di ci woo mbooleem taalibey sëriñ Tuubaa yi nga xam ne ñoom la bokkal sëriñ Tuubaa waaye di ci woo képp koo xamante ne bi mbégum sëriñ bi sa mbëg la mbégum sëriñ Tuubaa sa mbëg la mu ngi lay woo ci bis boobu di xam ne ne bis yoonu murid yépp la waaye bis boo xam ne nag dañ koy jagleel ci kenn ki nga xamante ni bokk na ci fukk yi njëkk jox seen bopp sëriñ Tuubaa xam ngeen ne alxuraan lañ cay jiital ba tax na sëñ baa ngi soññee ci lu jëm ci wàllu alxuraan yi bu ñu xëyee juróom-ñetti waxtu ci suba wala juróom-ñaari waxtu fas nañu yéene yennoo jàng alxuraanu karim xasaay ci sëriñ Tuubaa ak bépp xeetu ñaan boo xamante ne bi yàlla na ñu koy defal waa ju baax warawatina jëmm ju toll ne sëriñ Mor Ndiaye tàggaar kon nag sëriñ baa ngi ciy woo ñëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn ñu fàttali ko muy juróom-ñaari fan ci diggu tabaski war a dëppook ñaar fukki fan ci weeru ci weeru tubaab wala ñaar fukki fan ak benn ci weeru tubaab mbokk yi kon ba bis ba insha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wasallim salaatan alal mustafa وسلم سلاما عليه يدوم وسلم صلاة على المصطفى وسلم سلاما عليه يدوم وسلم صلاة على المصطفى وسلم سلاما عليه يدوم